الرحيم لك الحمد يا مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعاليت لا يقوى على حمدك العبد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma baadu xadaraat alsaada walsayidat alsalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min gayri italatin nawaddu an nuclina alan an intilaaqi alnadwa alcaalamiya للمولد النبوي الشريف حيث الآن نفتتح بالدورة العلمية مع رجال من فطاحلة هذه الحضرة المباركة علماء ومثقفين بدعوة من وبإذن من الخليفة الشيخ محمد الماحي بن سيدي سليم بي نس الحاضر معنا في هذه القاعة المباركة وإخوته الكرام سيدي الحاج محمد زينب بن الشيخ الحاج بن الشيخ سليم بي نس والوفد المرافق لهما وجميع الحاضرين نرحب بكم في هذا اللقاء الميمون المبارك وباسم الأستاذ فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بوكارنيان رئيس اللجنة المكلفة بإحياء وإعادة من دثر من تراث الفيضة الإبراهيمية وبرئاسة أيضا الأستاذ المفكر الباحث الأستاذ بابكر نيان وبشرف أيضا من من kulli min al eh, min min sayidi ali ibni cheikh alxaaji abdullahi wa sayid cheikh babacar ibni cheikh alxaaji abdullahi wa aydan alshaaciru almutafawiq alustaz ahmed bukaar ñang almaaruf bi bukaar ibni sayida nafisa bint cheikh ibrahim ñas wa sanu insha allahu sanuarifu bi kulli min eh, almuhaadirin min alladina ixtaarathum allajna li yaqumu bi ixyaai hadihi nadwa narju llah tabaraka wa taala an yuwaffiqana jamian lima yuhibu wa yarda kon mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali ci ñaareelu jotaay bi muy li nga xamante ni moom moo ñu fi indi ginnaaw jotaay bu njëkk bi nga xamante ni teralal neen ko suñ maam maam Serigne Mbaye Niass ñi wax ci ñi ci war a wax wax ci ay kàdd yoo xamante ni kenn mënta yokk lañ wax ci moom waaye wax ci moom comme ni ko oustaz Ibrahima Mar waxee léegi wax la boo xamante ni maanaam jant dana soow te la ngay wax ci moom du jeex loolu nag buñ ko waxee mooy ay ngëneelam ak mbaaxam ak xam-xamam dafa daj àddina waaye it dafa daj ay góor yàlla yoo xamante ni daf leen defar ñoom ñëpp ñu nekk ay xiriiji ñu génnee ci madrasa bi nga xamante ni moom mooy madrasal bakriya mooy al madrasa ñu ngi leen di ndokkeel ca suñ mag euh, Serigne Aliou ibnu Cheikh Alhaaj Barham euh, jàllale fi discours bu baax bu discours bu rafet ci arab firi ko ci wolof euh, laa xarwa ndax euh, bu nekkee xatib baayam xatib la woon maamam xatib la woon maamaati maamam xatib lañu woon ñoom ñëpp ay xutaba leen yoo xamante ni bu fekkee ñëw na fësal fi xam-xam bu leer boobu ak discours bi am njëriñ boobu noonu ñu ngi ko ci ndokkeel ginnaaw loolu nag ñu ngi bëgg a jotaay bi ci ubbee ko ci ak kenn ci boroom xam-xam yi boo xamante ni ku pays bi ràññee la ci gëstukat ci bindkat ci leeral bind bàyyi mu nekkoon euh, élève boo xam ne ci roon école al oustaz Ibrahim Mahmoud Diop la génnee ci taarix ndax lépp lu muy bind mu jëm ci pay bi ñi di ko nettali ci maam alaaji Abdoulaye ba ci bésu tey jii lu aju ci école bi muy ci góor ñi àndoon ak moom ci ay doom ci ay taalibe ci ay soppe ci ay wëlëre lépp lum ci wax rek dafa nekk taarix bu wér boo xamante ni lum lum jëlee ci ay mag ñu jëlee ko ci ay mag ba ñu génnee ci gémmiñu maam alaaji Abdoulaye ñooñu ñoo ko nettali ba mu agsi ci moom mu di ko jël di ko taalif di ko bind nit ñi di ci jëriñu mu bind ci ay téere yu bëri téere yi nga xamante ni taalif na ko fa tabaarakallah macha allah ñu bëri yaakaar naa ne liir neen ko liiral neen ko ci ay gëstu yoo xamante ni sonn na ci di ci dem ay bitim réew di fa def ay weer di tukki ci àll bi dara yóbbu ko fa lu mooy am bërëb boo xamante ni dana fa fiix rek pour mën a jël xalimaam pour nose li nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi ngir mu nekk njëriñ ñeel ñu ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk tey di ay ndaw waaye ñeel képp koo xamante ni tamit dana màggi ëllëg lépp loo bëgg a gëstu ci sa taarix ci sa dëkk ci sa maam boo ñëwee ci bind yooyu nga xamante ni al oustaz Babacar Niang mii bind na ko ak rakkam oustaz Ahmed Boucar bi nga xamante ni moom mooy euh, président euh, euh, comité bi nga xamante ni moom la xalifa bi dénk ñu leeral lépp lu aju ci turasul fayda ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñaar ñëpp yàlla yàggal leen fi may leen fan bu gudd ak wér dëgg-dëgg seen liggéey mu ngi feeñ ci waxtu bu nekk te mu ngi jëriñ ay jaamu yàlla tey rek lii nga xamante ni mooy kaddu bi ñu jox président Bassirou Diomaye Faye kaddu bi ñu ko jox mooy ay taalif baay yoo xamante ni Ahmed Boucar mii moo ko traduire ci ay langue ñu jël ko ay boromi xam-xam tamit bind ci ñu jël ko téere yooyu noonu moom lañ boole jox ko ko kon loolu dëgg-dëgg bu fekkee liggéey boobu noonu ak ci tey war a jël micro war neen koo fësal it jëreen ci ñaanal yàlla di ndax liggéey boobu mu ngi koy defal ummal islaamiya bi waaye mu ngi koy defal rawatina taaliba bàyyi kon loolu tey bu tombeek ñu tuddee nag beneen école ci biir école yu bàyyi muy maam Serigne Mbaye ñu tuddee ko xam xam-xam jël tuddee ko xam-xam géeju xam-xam rek la ndax loolu tey jii nii muy def nii muy paneel bi ñu nekk nii tey ñu ne dañuy tànn maam Serigne Mbaye tuddee ko ko dëgg-dëgg maanaam euh, li olof di wax na ne dërëm bi génnut gaal gi ndax xam-xam lañ jëlaat rek sottiwaat ko ci xam-xam kon ñu ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla li des ci jotaay bi yàlla defal ñu ci tawfiq kon ñu ngi euh, jël micro bi di ko jox suñ mag al baaxith al ustaad Babacar di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal tawfiq moom nag mawduu bi nga xamante ni moom la war a euh, jàllale moom mooy al bu'du siyaasi والدبلوماسي في الرسالة الربانية لإمام الفيضة التجانية mooy sore diplomatie Baye ak gis-gisam ci politique hm، ak leetar bi nga xamante ni maanaam moo bàyyeekoo ci leetar yar bi nga xamante ni moom la yar taaliba yi lépp loo xamante ni njëriñ la rek ci diplomatie Baye dana ci dugg ak ñun ak politique bi nga xamante ni bàyyi daana ko def ak àddina bi ndax ci kanam incha allah bu ñu ko joxee loolu yëpp dana ko feeñ dana ci feeñ ñu ngi koy ñaan yàlla tawfiq di tatagal eh, ñiy dugg si léegi nii mooy yaakaar naa ne moom lañ eh, dara jaalee eh, bés bi bokk na ci ñu ngi ko dara jaalee mooy Sayda Asmaaw bint Cheikh El Hadj Abdoulaye ak ñim ànd ak délégation bi yëpp ci ñu ngi leen di tatagal kon lu El Oustaz ileykum microphone فلتتفضل مشكورا